ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir mi wala si biir réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production a xam ne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 wasalaatu wasalaamu ala almabxuusi rahmatan lil alamin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabiina lahum bi ixsaanin ila yowmi ddin wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh amma baadu ayyuha alixwa inna alwaxdata hiya himaadu alqiyaami alamali annaaji wa lihaada fa alislaam bi tabixati alaal yajcalu min almuslimina kutlatan waaxida ويخلق بينهم تضامنا فهو يجمعهم على عقيدة واحدة وعبادة واحدة وشريعة واحدة وقبلة واحدة وغاية واحدة وأي سطح في هذا وأي سطع في هذا الوحدة وأي هسة في هذا الكيان يعتبر جريمة ما بعدها جريمة إن الفرقة هي القاضية على الدين والدنيا معا ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتفسروا وتذهب ريحكم وذهاب الريح هو هي هو ذهاب القوة القاضية بال doofi wal idlal walaqad axasa al islaam ijraatin saarima li manhi ay ixlaalin li dalika li tilka al waxda allati tatawalladu minha al mahabbatu wal uxuwatu wa taawunu wa min tilka al ijraat idaau al muminina wal muminaati bi xeyri maktasabu faqad istamaru buhtaanan wa isman mubina ثانيا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والكلمه الطيبه التي تجمع الستات وتوحد الكلمة وترأب السطع من الخير التي يتخرب به إلى الله سبحانه يقول سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ولم يرخص ولم يرخص الإسلام في الكذب إلا في مثل هذه الظروف تأليفا للقلوب وتوحيد وتوحيد الصفوف يقول صلى الله عليه وسلم ليت الكذاب الذي الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ومن ومن هنا ندرك أهمية مراعاة الأخوة الإسلامية مما يؤدي إلى الوحدة والتضامن والمحبة والتعاون بين المسلمين ويقول سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللهم انصر المحبة والوحدة والتعاون والتعادد بين المسلمين mbokk yi niñ koy defee rek ci di fàttalikuwaat fàttali di di bokk di fàttalikuwaat ak di bokk di nafaraat ñu ñu ngi waxtaane woon ajuma ji weesu waxtu ak am solo gum am solo ci ab jullit mu war ko bàyyi xel ak ni mu ko war a nosee ba nga xam ne dana ca mën a jariñu ni mu ci war a jariñoo ba noppi itam bu ko nosee mu nosu ca biir nos boobay nga xam ne moo la nos di ca dox doxin wa nga wa nga xam ne moo ci war mu mel ni nag lislaam dañoo teel a bàyyiloo xel ci ne waxtu woowu am gi tax buñ ci bëggee jariñoo ni ñu ci war a jariñoo dañoo war a nekk ñun ñi nga xam ne ñoo ko séq benn ngir man cee jariñoo ni nga xam ne ci war a jariñoo ñu ngir itam man cee fàggu li nga xam ne moom lañ ci war a faggu ndax xam nañ ne lislaam wala adduna sépp suñ borom da koo teg ci waxtu mu mel ni kon waxtu lu am solo la lu a bàyyi xel la te li waxtu woowu nga xam ne moom la moom la suñ borom teg ci def muy àdduna waxtu woowu lim ci jox doomu aadama dafa néew ba nga xam ne doomu aadama ji munta xam li nga xam ne moom lañ ko ci jox lu mu toll ba tax na nag comme dañ waxtu lañ ko ay waxtu lañ ko jox yoo xam ne moom la war a dund ci àdduna si kon war naa bàyyi xel waxtu yooyu ba xam nan la ci war a jëriñoo jëriñ jëriñin wu rafet rawatina nag mu doon loo xam ne dañ ko cee defloo ci àdduna defloo ko ci àllaaxira kon waxtu lu mat a bàyyi xel la waaye nag li ni ñu koy bàyyee xel mooy faaw ñu nos ko buñ ko nosee itam faw ñu nosu ñun tam ci biir nos bee nga xam ne moom boobee nga xam ne moom lañ nosu la loolu nag moo tax lislaam mu bàyyi xel wa bennoo boo xam ne dañ ko war a bennoo ndax loolu mooy tax nos ga nga xam ne moom loolee ñu nos ñu mën caa jariñu ñun ñëpp niñ ci war a jariñoo ndax bu fekkee ne dañ dañ koo nos ba noppi te am ñu jaar ñeneen waxtu am ñeneen ñoo xam ne dañoo jaar ci feneen wala ñu jëm feneen yaakaar naa nañ ci war a jariñoo duñ ci war a nañ duñ ko jariñoo loolu nag moo tax ba lislaam dafa bàyyi xel ne ngir ñu bari ñu mën a jariñoo ci waxtu wi niñ ko war a jariñoo ñun ñëpp dañoo war a nekk benn say ngir mën a jariñoo ci waxtu wi ni nga xam ne moom lañ ko war a jariñoo loolu tax loolu nag moo tax lislaam ci ay jàngaleem ñu gis ne lépp da koo tënk ci ñu bëgg ñu doon benn ndax xam nañ ni pas-pas bi nga xam ne moom la ab jullit bi yor jullit bu ne yaa yaa sa morom yéen ko bokkale xam nañ ne jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ñuy def jullit bu ne yaa sa morom yéen ko bokkale xam nañ ne yoon yi nga xam ne moom la suñu borom tër muy luwaay yi nga xam ne moom la ñu war a atte yow xam nañ ne benn benn atte la boo xam ne suñu borom moo ko andi xam nañ ne itam kaaba gi nga xam ne moom la ñuy jublu ngir jublu julli genn kaaba la xam nañ ne itam jaamu yàlla li tax ñu di ko def benn lenn la rek muy màggal suñu borom xam xamal ko ne ko yaay su yaa ñu war a yilif xamal ko ne itam yaay ki nga xam ne yaa war a dox yaa yaa yaa am sañ-sañ ci ñun loolu nag mooy tekki ne kon bennoo day doon na lu am solo ci lislaam ba tax na de bennoo itam doon na loo xam ne mooy mën a tax ñu mën a jagal suñu àdduna mooy mën a tax itam ñu mën a jagal suñu àllaaxira loolu moo tax suñu borom di ñu so di ñu di ñu soññ ci ne bu leen juyoo mukk ndax juyoo kat li muy indi mooy ak néew doole lay indi. te xam nañ ne néew doole li muy indi mooy ak doyadi ak ak matadi loolu lay indi kon ba tax na suñu borom soññu nu ñu war a nekk benn war a bokk genn jublu bokk itam fenn foo xam ne fa la ñuy jëm mën a nos suñuy waxtu ba mën cee jariñu ni ñu ci war a jariñoo loolu nag tax na ba lislaam lépp loo xam ne day indi ak taqaliko wala day indi ak ak ñàkk ak juyoo ci biir lislaam wala ci biir jullit ñi suñu borom da ko da ko dafa taral mbugal yi nga xam ne moom la ci teg ci képp koo xam ne yaa ngi koy def bokk na ci li nga xam ne mooy moom mooy mbugal yi nga xam ne teg na ko ñi nga xam ne dañuy indi dara ci ci lislaam loo xam ne day indi ak tàqali ko mooy ñi nga xam ne dañuy lor ab jullit te lor googee teguñ ko ci benn àq dañ koy def rek ci seen coobare bopp wala dañ koy def ci seen bëgg bëgg-bëgg bopp suñ borom xam le ne képp koo xam ne yaa ngi lor ab jullit moo xam jullit bu góor la wala bu jigéen la na nga xam ne yanu nga loo xam ne ab bàkkaar bu rëy la yanu nga itam aw duur woo xam ne duuru wu rëy la ba tax na loola lu mat a bàyyi xel la bokk na ci li nga xam ne itam suñ borom dafa tëkku ñi nga xam ne dañ koy def te loolee buñ ko defee li muy indi mooy ak tàqalikoo ak juyoo mooy génne ay rumeur yoo xam ne xam nga ne lii musiba rek lay jur ci doomu aadama yi loola bokk na ci li nga xam ne lislaam da ko bañ ba tax ne wax na ne képp koo xam ne def nga ko na nga xam ne da nga am mbugal mu rëy mu metti ci àdduna si ak ci àllaaxira ji lépp nag doon loo xam ne kon dañuy won ne lislaam bëgg na ñu nekk benn ndax xam nañ ne nekk benn googee mooy tax ñu mën a nosu xam na ne itam mooy mooy tax ñu mën a nosu ci biir lañ nos loolu nag boo tax kon faw ñu war a bàyyi xel ne nañ nekk benn te lépp loo xam ne day indi ak tàqalikoo wala indi ak juyoo ci biir jullit yi ñu fas yéene koo daw ndax suñ boroom dafa dam na dañ ñoo defarloo adduna defarloo nooñu àllaaxira te xam nañ ne jëf ji nga xam ne moom la ñuy fay tegu ko ci waxtu tegu ko ci weer wu jeex tegu ko ci jëf ja jëf bu jeexee moom li nga ko teg rek ci kaw jëf ja nangu nga ko jëfee loola ci ci kaw loola la lay fayee loola nag li mu lay bàyyi loo xel mooy daa bëgg nga xam ne jëf jii mu lay jëf loo doonut loo xam ne dang dafa dafa war a doon loo xam ne lenn rek la war a doon ba nga xam ne moom da nga ciy bàyyi xel muy jëf yi àdduna kes kese ngay jàpp ne moom nga war a jëf wala da nga war a jëf a jëfi àllaaxira waaye ñaar yëpp ngay boole da ngay boole jëf yi àdduna ak àllaaxira moo tax joxu temps ci ne boo defee temps sàngam ci laa lay fay waxu la itam boo defee waxtu sàngam ci laa fay waaye dala wax ne boo defee jëf ji rek ci laa lay fay loolu kon lim nuy woon mooy am am solo gi nga xam ne moom la amal solo jëf ak waxtu wi nga ñàkk gi mu ñàkk tënk ci ne waxtu woowee nga xam ne moom lañu jeexal buñ jàpp ne mukk dañ koy def rek ngir àllaaxira kese wala dañ koy def ngir àdduna kese waaye dañ ko war a def ngir àdduna ak alaxira loolu lu mat a bàyyi xel la lu am solo la ñaareel ba itam xam nañ ne wax nu du noona lu rëy rëy ci lislaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas lañ koo laaj ne ko ndax ab jullit dana naan sàngara mu ne waaw ñu ne ko ndax ab jullit dana njaaloo mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana fen mu ne loolu moom jullit du ko def kon mu mel ni fen kon lu rëy rëy la ci suñ borom bokk na ci li ñu koy won sax mooy fen boo ko defee adduna du ko xajoo ba day dem ca kaw bu ci suñ borom bu demee ci suñu borom ne ko maay fenu diw sàngam fen woowee nag bu ko defee bu ne maay diw fen maay maay fenu diw sàngam suñu borom dana rëbb waaje nga xam ne moom la fen moo fen malaayika yi nga xam ne ñoo fa nekk itam danañ ko rëbb kon mu mel ni kon fen lu rëy rëy la waaye li muy rëy rëy am na am na lislaam daganal na ko te loola li tax mu daganal ko mooy bañ rek ak taqalikoo am bañ itam ak juyooyo am mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy def ci loo xam ne li nga ci jublu mooy defare ak defar loola suñ boroom du nee na sa bi sallallahu alayhi wa xam ne ne loola duñ ko tuddee ak fenn duñ ko tuddee fenn duñ ko tuddee wax waxin waxin wax joo xam ne teguwul fi mu a tegu waaye dañ koo teg dañ boo ko defee ngir loolu day mel ni lu baax rek la tax jóg te lu baax loolee ba dana tax ba fenn woowee wala wax ja wax ji te teguwut fi mu war a tegu suñ borom na la ko jéggal ngir lu baax loolee nga ca def kon mu mel ni kon loolu dañuy won rek ne maanaam lislaam bëgg na ñu nekk benn ndax xam na ne ñu nekk benn mooy tax ñu mën a nos bu ñooy mooy tax itam ñu ñu mën a nosu ca lañ nos kon ñu bàyyi xel bu baaxa baax ci xam ne lislaam bëgg na bàyyi xel li nga xam ne mooy waxtu te bàyyi xel googee itam xam na ne ngir ñu mën koo def ni ñu ko war a defee faaw ñu nekk benn faaw ñu boole suñ bopp faaw ñuy dimbalante faaw ñu bëggante ni nga xam ne fawuñu ñuy ñu doon ñoo xam ne itam dañuy rafet njortu ci suñ mbokk jullit ndax yan suñ borom dafa waxoon ci ne lawlaa istamaitumo zannal muminuuna wal muminaat bi anfusihim xayra waxaaloo haada ifkun mubin mooy bu fekkee ne jullit sax am nga koo xam ne ra ñaaw nga ci bopp wala am nga koo xam ne def na loo xam ne jàpp nga ne xëy na lii rafetul nee na na nga na nga na nga soppi nga waroon a def ak xel xalaat yooyu nga waroon a xam na ko moom nga waroon a def nanga ko soppi def ko muy lu baax te jàpp ne jullit wërta mën a def lu dul lu baax loola nag kon lépp li lim ci tekki mooy bëgg rek ñu nekk benn bëgg ñu boole suñuy doole bëgg ñu boole suñuy xel bëgg ñu boole suñuy kattan ngir li nga xam ne moom lañ ñu sànc ci àdduna si ñu mën koo def def yi nu rafet moom suñ borom mi nga xam ne nag mooy borom kattan te mooy boroomu man te mooy ki nga xam ne moo sañ yàlla na ñuy dimbale ba li nga xam ne moom la bëgg ci ñu booloo ko ñu booloo booloo googu mu defal nu ko ci rafet raxasal nu xol yi raxasal raxasal nu xalaat yi ba li nga xam ne mooy booloo ak benn ak bennoo ñu mën koo def ñi nga xam ne ni ko suñu borom bëggee loolu moo nuy jariñ ci àdduna moo nuy jëriñ ci àllaaxira yàlla nañ ko suñu borom defal ñu ñaan nag ginnaaw loolu di tàllal suñuy loxo suñu borom mi nga xam ne mooy kattan te mooy borom man mu dimbali nu ba Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk te taxawal fi lislaam ak képp koo xam ne taxawal nga fi lislaam yow la yàlla na la suñu borom jàppale taxawu la ba li nga xam ne yéene nga ko ci lislaam nga def ko ci def def ko definu kaw jot te daje ci ngërëmul suñu borom loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko